asalaamaaleykum waa Sénégal barkeb Cheikh Béthio jërëjëfati Serigne Saliou Cheikh Béthio jàmm Serigne Saliou yal na fi yàgg lool te ànd ak wér muy mel ni dañuy wàcc événement bu mag ñu taalibe Serigne Béthio taalibe Serigne Saliou fii ci salle bu mag bii di Grand Théâtre le 24 juillet ànd ko kan suñu werakaan bi di ñan Niang Mouhamed Niang mu Cheikh Béthio ko xamul dégg ko ñoo ngi ciy woo nag mbokk taalibe yëpp di ci woo képp koo xam ne taalibe Serigne Saliou nga ndongo tarbiya yi maa ngi ciy woo daal ñëpp ñëpp ñëpp waa staff bi ñun xam nañ ni dara du yomb ndax guddi sant Serigne Saliou la te Serigne Saliou ku ci nekk am na lu mu def ak yow nga xam ko ci loo xam ak loo xamul ñu mel ni lu ci loolu laay joggi woo ñëpp bu ko ñëpp wute dina neex dina yëngu waaw le 24 la def leen seen réservation ci numéro pub bi incha allah dina neex woo nañ ci woo nañ ci ñëpp daal bu soobee yàlla